Multiculture. moo jot kon ba tegal benn simili ci studio King FM Midi Culture asalaamaaleykum. l'examen baccalauréat ndongo yi kon ko niki suba ak tay fépp ci biir Sénégal directeur général office du bac di Socé Ndiaye ne kon les yemb na ngir ñu amal l'examen bu jaar yoon ba noppet di ci tek kon di artu candidat yi ci téléphone portable loi de finances rectificative 2019 adopté nañ ko niki demb ci pencum ndawu réew ma ba Ousmane Sonko di jël kàddu kon député yi faré ci nguur gi dañoo génn salle ba ne li leen metti bokku na ci kon di Sonko wéru novembre atum 2018 ba légui tegul tankam fofé ci assemblée nationale njiitul Pastef mom euh, tontu ni lu mel lu ko toppandig lépp loole ci biir Midi Culture cinébar su bëri kon la ñu daal di teg loxo ca port bu Ndakaaru way tamit di jur coow 798 kilogramme mu cocaïne lan fa mujj douane yi kon mujjee jàpp Cheikh na Cheikh Sadibou Keita nekkoon fi ci ay jamono commissaire buy saytu mbir mu ni mel ne li rëcc kon moo daal di ëpp li ñu teg loxo ay kàddoom ci biir Midi Culture li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram moo gën kon tey Sénégal mi nar a laale Kenya bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee buñ ko faram faccé ba nopi soga dugg ci pacc bi nu jaglé la dak ciosan mu gën ci fess festival kasso jombul kenn ma fam geey mi japp ni kon euh, li nga xam ci modi littérature sénégal mi ngi dal di jëm ci kanam bu baaxa baax dinañ def itam ab taxaw sé lu jëmele ko ci kankuran natal bi ak gan gi moy bural midi culture ñu ñaanalante daw de geey mo nekk ci machine bi midi culture Mediculture Serigne Saliou Sek mo ci feggoo go Ndiaye ñu am ci mbégte contentement bu mak di leen ko faram faciel Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Serigne Saliou Sek du nuyu mbokk auditeurs yeeg internet ci ñu suivre mi ngi nonu kon nañ leen ko xee ca ba rek lañuy daldi duggé di uh, ci yaatal gi ak l'examen baccalauréat bi ñu door ni ki subaak tey ni ki subaak tey nag la ko daldi tambali lu tollu ci 155 uh, candidat candidats ñom ñi lay dinañ daldi di uh, liggéey ci épreuve examen yi lée ñu daldi leen séparé ci lu tollook 509 jury nu rek ci directeur général bu office du baccalauréat moom nag mi ngi daal di xamle ne euh, teg disposition yëpp ngir rek examen yi daal di mën a jaar yoon nanu teewlu Ndeye Mathi Dia mi ngi noonu kon loolee jombul dinañ ci dellu si laata xibaar yi di ak examen baccalauréat bi nga xam si ndongo yi daal dinañ koy door ni ki suba ak tey Socé mi euh, directeur office du bac nag kon daal dinay dellu si waat ci ni mu gën a ci tere yi tamit ak digle yi nga xam si moom lañ ca daal def euh, dinañ ci dellu si ñu daal wax ci leneen rawatina loi de finance rectificative bu atum bi nga xam si daan nañ koy adopté ni kii démb ca pencum ndaw réew ma di assemblée nationale. ba tax na sax député wu majorité parlementaire yi nga xamante ne ñoom ñoo fare rek ci pouvoir bi bi Ousmane Sonko jógee ngir jël kàddu gi ñoom ñu le rek dañu daal di génn salle bi li ko waral rek daal di nañu xamle ne weerub novembre atum 2018 ba tey kii di Ousmane Sonko tegul foofu foofule euh, tànkam waaye kii nag di Sonko daal dina leen tontu di xam ne ni seen doxalin nag laalu ko euh, benn yoon kumba ba député yi fare ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ba Ousmane Sonko àddu jël kàddu rek la ñu génn ci assemblée ba ci dimanche ji ci plénière bi jëm ci loi de finances rectificative foofee sa assemblée nationale Aymérou ngi nag moom moo ko jiite moom mi président bu groupe parlementaire ba ca gannaaw ga la naataangoom yi fare ci majorité bi ñoom it daal di def lu ni mel muy ab acte boo xam ni Sonko àddu na ci ba mu jëlee kàddu ndax nee na dañ koy gën a yombalal liggéey bi rek ndax moom ñëwul woon ci assemblée bi ngir wax ak ay nit yoo xam ni donte ne ci majorité la ñu fare xamuñu li ñu ñëw di def tey lan mooy enjeu yi waaye du Ousmane Sonko rek moom la ñu buddee foofee ca assemblée ñoom député yi benn bokk yaakaar ndax jigéeni parlementaire ya moo xam ci parti bu ñu mën a far ñoom tamit dañoo ne kii di Malick Gueye bokk ci grand parti moom du jël kàddu ci assemblée ba bu ñu sukkandikoo ci laas ñoom jigéen ñooñ li tax nangu ñu déglu seen naataango bi mooy dafa am luñ ko dencal di ab maire muy seenu motif ndaxte dafa ŋàññoon lii di loi bi jëm ci parité moom député bi bokk ci liste taxawu Dakar ab déclaration la defoon ci parité ne ab catastrophe la te kat dafa gën a wàccee li nga xam ni moom mooy niveau assemblée nationale ba muy déclaration boo xam ne ba mu ko defee ba tey ñoom jigéen ñi fàttewuñu ko te dañ cee mer lool ndax ñu ci bëri ci jigéeni député yi dañoo gis seen bopp ci wax ji Kumba Ba ngërëm ñel na la ñu ci dellu si waat l'examen baccalauréat bi ñu door ni ki tey ba tax na lu tolloog 155 551 candidat nag dinañu jongante di leen wasaare ci lu yi war yëpp ngir rek examen bi daal di a jaar yoon nanu daal di teewlu ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Mathi bi def reportage baccalauréat tàmbali nañu ko ni tey ndongo yi wutali seeni centre kilifa yi ngànk examen bi yi jël seen i matukaay ngir lépp jaar yoon Socé Ndiaye mooy directeur office du bac. jury yi en terme de euh, candidats yi mais jury yi également en terme de enseignants yi ak en terme de infrastructure yi leen di war a recevoir bi ñu ko defaree ba pare donc euh, kenn ku ci nekk wax nañ la fan nga war a dem ak lan nga war a dem léegi loolu def nañ ko léegi nag li des mooy ñu def composition ñu ngi toll ci téeméeri junni ak juróom fukki junni ak juróom ñu toppal juróom. dellu si na ci lii di téléphone portable ak bépp jumtukaay boo xam ne bi mën a la may nga jox ko ku boo ko bokkul fu mu nekk jumtukaay yooyu dañ koo tere ci biir centre bi nag ku ñu gis nga yore ko am na ay ndigal yu ñu joxe ña fa dañ lay jàpp génn la ci biir centre bi te yow examen boobu mënatoo ci am résultat defoon nañ ko benn yoon dañ koy defaat tam encore te nañ ko defe woon lañ koy defewaat Socé Ndiaye directeur office du BAC yamu ca ndax artu na itam ñi di génne fuytu sujet yi gis nañu ne am na ay nit ñoo xam ne ñenn ñi sax yenn saa yi ñu ci biir système bi xëy na dañuy jàngale wala en tout am na lu ñu def ci biir système bi dañuy dem gis xale yi ne leen ñun sujet yi kaay leen ñu jaay leen bu nit ñëwee di leen jaay à la limite nañ ko dënn ndaxte sujet yi nga xam ne moom la ñuy nar a joxe ñooñu di wër ne dañuy jaay mu mënuñoo xam fu mu nekk gannaaw juróom-ñeenti weer ci biir classe yi élèves terminal yi di def bac tey muy examen bi leen di yóbbu ci daara ju kawe ji résultat yi nag ñu koy xaar fi ak ay fan yu néew ngërëm ñel na la Ndeye Maty ñu ñaanal kon candidat baccalauréat ay yàlla may leen ci ndam ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. King FM première bi ñu jàppee euh, bi nga xamante ni jàppoon nañ lu toll ci ñaar téeméer ak fanweeru euh, kilogramme mu euh, cocaïne jamono jile rek daal dinañu tegaat loxo ci lu toll ak 798 kilogramme boo xamante rek dañu ko daal di ci ay ginnaaw woto yoo xamante mu nga jóge woon. ca Brésil ba ki di ex commissaire cherna cher Sadibou Keita nak dal dinañ xamle ni ñu gëna a xel rek ci li ni mel mu ngi ci micro RFM. effectivement dafa nek ci yoon yi nga xam ni ñiy jaay drogue ko privilégié di ko utiliser pour i drop mu dugg fi mu mel ni Guinée Bissau ak yeneen réew yi pour indi drogue mu dugg mais pour tamit jàllale ka loolu nag dafay xaw a yàgg yàggaay bi nga xam ni tey su fekkee ni gis nañ ni saisi yi ñu ngi tegaloo lu muy signifier du c'est que ñun ñoo def liggéey bu mais dafa signifier que ni li fiy dugg bari na trop junniy kilogramme cocaïne ci diiru ko ñetti fan waaw ça veut dire loolu dafa tekki rek ni li nu ñu sànni ci drogue ëpp na junniy kilo mat na ko ëpp fukki yoon wala ñaar fukki yoon ci juróom-ñetti pourquoi du ma ko wax ni ci euh, interprété c'est parce que déjà loolu moo normal parce que ñun plaque tournante loolu noonu la ñu signifié fii ñun ak réew yi ñu wër loolu la ñu tekki donc il faut que ñun ñu bàyyi suñu xel ci ni yi tamit trafiquants yi bu ñu jógee di yónni drogue du ñu jël benn malet rek benn valise rek def ci li nga xam ne moom la ñu soxla dañuy seet ñaata envoi la ñuy def pour que su fekkee def nañu ñaar fukki envoi ñeent rëcc ci lii dafa bokk ci envoi global bi nga xam ni ñu ngi évaluer ni ñaata chance la ñu am pour mu jàll. ci moo nar ëpp solo njàngat bi ñu ci war a def nag mooy bañ a taxaw di tàcc suñu bopp ñu taxaw ci raison boobu bi ñu jàppee lii lan moo jaar ak lu tax ñun. ci jamono ju gàtt jii rek ñu mën fi def ñaari saisie yu am bi importance te ci gannaaw rek defoon nañ fi yeneen saisie yeneen saisie ci yoon yi defoon nañ fi yeneen ñu war a taxaw nag def ay jàngat jàngat bi gën a wóor mooy nanu xool ndax suñu système ñun jël na en compte élément yooyu yëpp pour que suñu stratégie nekk stratégie buy aar Sénégal buy aar zone bi nu nekk donc war nañu seetaat suñu bor lu fi dugg rek am na lu ko ëpp lu mën a jàll. mu nekkoon kàddu yi Cheikh na Cheikh Sadibou Keita nekkoon fi ci ay jamono kon commissaire buy saytu wàllum euh, drogue ci mbir moomee tamit la ñuy des ba tey mu mel ni jàpp nañ ci lu toll ci fukk ak juróomi doomu aadama. bu nu sukkandikoo ci wàllu observateur rek daal di ñu leen teg loxo ndax jàpp nañ rek dañu daal di euh, bokk ci mbirum euh, trafiquant yooyu le takku der yi tamit ñu ngi daal di xamle ni dinañ daal di tegaat loxo yeneen nit nag jëm ci euh, bile affaire ki nga xamante ni moom moo di commandant bateau bi waaye itamit euh, membre équipage am it dinañ leen daal di woo ngir rek jëmale ko ci euh, bile l'enquête ba tax na rek mbir mi lee daal nay am beneen jéego ndaxte fi mu nekk nii dañuy ca dugal ña nekkee ca bitim réew lu ci mel ni waa Interpol ngir rek ñu daal di mën a jàppale sunu enquêteurs yi ngir indi ay leeral ci li ni mel. midi culture midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise FM partout et nulle part ailleurs. bàkk boobee kon xibaaru bi ci réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Serigne nuyu ak yu King FM. maa ngi lay fay Koumba euh, Ba dañu koy tàmbali foofule ca Mauritanie jamono jile rek euh, résultat définitif yi jëm ci wàllum élection présidentielle yi dinañ ko xamle euh, ni ki tey jii loolee rek tax jamono jile ñëpp a ngi toog rek jaaxle ba tax na sax li nga xamante ne moom moo di internet bi daal dinañu koy couper ca foofe résultat yooyu la ñëpp di xaar jamono ji kate ci altine tey ji lekk conseil constitutionnel war a joxe proclamation yooyu la résultat nag ñu koy xaar ci jamono joo xam ni dëkk ba jaxasoo na loolu ndax opposition ba ba tey ci seen jano ak taskatu xibaar yi ñu ngi xam li ni ñoom résultat provisoire yi ñu joxe woon ba tey ñoom ànd guñu ci wàllu kaaraange ga nag moo gën a fës foofee ca Nouakchott yokk nañ ko bu baax ba tiital askan wa ci gox yi nga xam ne nemmeeku woon nañ fa ay manifester di xa yooyu tamit kaaraange ga gën nañ ko fa yokk kon euh, ci yoon yi nga xam ne tamit ñoom ñoo jëm ca palais présidentiel ba ñoom tamit yoon yooyu yëpp dañ leen bloqué euh, bataillon bi yor wàllu kaaraange euh, président ba sax ñoom ñoo fa taxaw ne nañ lépp ci wàllu kaaraange la. ñu daal di dem foofu léegi ca Soudan ay manifestation nag daal di nay tax ñu ci bëri ñàkk ci seen bakkan am ñoo xamante ni tamit daal di nañu ci am ay gaañu gaañu. juróomi doomu aadama gën gaa néew ñoom ñoo faatu bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué ay junni junni doomu réewu Soudan tamit jëlee ci génnoon démb euh, manifester ci dëkk ba yëpp nag manifestation yooyu fësoon na fa lool yi ñoom nag li ñuy sàkku moom mooy l'armée ba daal di delloo pouvoir bi ñi nga xam ne ñoom ñooy civil ya force de l'ordre nag di takk der yi bi ñu doon jàmmarloo ak askan wa ay gaz lacrymogène la ñu doon sànd ci seen kaw foofee ca xaxtum li ñu leen doon aaye nag moo ñu egg ci pale présidentiel ba euh, ñu bëri ci doomu aadama yi faatu nag euh, bal réel moo leen moo leen rey maanaam dañ leen tiire fetal

yi nag moom moo amoon ca dëkk ba bokk na ci yooyu la manifestation sax benn messe bu ñu amaloon ca cathédrale Notre-Dame du Congo foofe ca Kinshasa monseigneur Kizonga moom nag di ab évêque auxiliaire daal dinay woo askan wa ci ñu gën a bëggante waaye nag ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi ba ñu teg justice boo xamante ni bii bu dëgër lay doon lijaaxal jaaxal askan wa nag mooy ci boobu la messe du benn ambassadeur bu jóge ci beneen réew bu fa ñëw daal di teew loolu nag xibaar yooyu ci RFI lañ ko jëlee def boobu la messe nag di ab mess de grâce nee nañu ka fa jiite réew ma di Félix Tshisekedi moom jamono jooju mu ngi woon ca province bu Ituri nekk ci bët gànnaar euh, bu réew ma euh, booy fàttaliku nag Ituri foofu la massacre yi amoon ci ay bés ñu génn ba téeméer ak juróom-benn fukki doomu aadama gën gaa néew ñàkk ci seen bakkan. kon kat yi tey fii la ñu yem ci xibaar yi ñeel bitim réew. ngërëm ñeel na la Kumba ba bu baax doon faram-fàcceel kon xibaaru biti réew yi tàggat yaram a ciy topp gannaaw bàkk bi lay doon. Sweet, de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram i kon lépp dañ koy dëxëñ ci seen xibaaru coupe d'Afrique. ba tax na ci euh, numéro bi euh, li ci gën a fes rek moom moo di euh, tontu Aliou Cissé jëmale ko ci coach Kenya bile nga xamante ni mu ngi doon yëkkati ay kàddu jëmale ko ci mentalu gaynde gu Sénégal bi waaye itamit ñu waxtaanee analyse bi nga xamante ni kii di Alassane Dia nekk instructeur foofu la ca CAF nag daal dina koy indi ci CAN bi bile Papa ma jaxate sax moo ko def. dal leen ak jàmm ci seen xibaaru Coupe d'Afrique. Africa Tonic. ñetteeli journée bu Coupe d'Afrique des Nations bi ñu ngi koy wéyal tey ak groupe D bi Namibie di ak Côte d'Ivoire Afrique du Sud di laale ak Maroc loolu bu 16h jotee lay ci groupe C bi Tanzanie di laale ak Algérie Kenya di tase ak équipe bu Sénégal bu 19h jotee démb ci résultat yi groupe B bi Burundi dafa ñàkk digam ak Guinée mi ko dal ñaari bal ci dara ba tax Guinée dal di qualifier ci meilleur troisième yi Madagascar Bet ñëpp dal di daan nigeria ñaari bal ci dara ba tax mu qualifié nekk ci première place bi ci groupe A bi Zimbabwe dafa ñak ci lu yaa ak république démocratique bu Congo mi ko daan ñeenti bal ci dara Uganda dal di ñak ak Égypte mi ko daan ñaari bal ci dara. seen xibaaru coupe d'Afrique. ci ab conférence de presse la ta jongante Sénégal ak Kenya entraîneur bu Kenya di Sébastien Migné dal nay xamné ne gaynde yu Sénégal yi amuñu mental bu baax lolé merlo bu baax Aliou Cissé ba tax mu dal di tontu ko. souvent mes homologues sama naataangoo yi tàmm nañ di wax ci ñun waaye dama leen di xamal ñu daal di toppatoo seen équipe moo gën entraîneur u Kenya bi ana lan la xam ci mentalité Sénégal lan la xam ci askanu Sénégal nan la mën a waxee ne amuñu mental ñun ñoo numéro 1 bu Afrique ñetti at a ngi nii dem nañ ci coupe du monde ci atum 2018 bi mooy suñu défaite bu njëkk ci ñeenti at ci seen continental bi équipe bu amul mental mënul def parcours bu ni mel waruñoo juger sama équipe ci benn match te compétition bi jeexagul pour ñun tey jii lañu ñu gën a dogu ngir def compétition bu mucc ayib te contre Kenya dañoo bëgg wan ñëpp ne équipe bu mag lañu wóolu naa samay joueur donte am na lu doxul suñu digganteeg Algérie waaye duma sopp noppi joueur yu bari ci équipe bi. donc il y aura pas une révolution croyable. gan gi. seen xibaaru coupe d'Afrique di dalal tey Alassane Dia directeur technique bu Tëngéej FC bi doon it instructeur ca confédération africaine bu football di càmbar coupe d'Afrique des nations bay amee ci Égypte. ñu gis ne coupe d'Afrique bi instant bi mu ngi dem ñu ngi ci dernière journée li nga xam ne moom match de poule yi alors euh, fi ñu toll nii ci compétition bi ban jongante moo la gën a marqué bi compétition bi démarré ba léegi. suñu match contre Algérie ñun waa Sénégal mën naa wax ni moom a gën a marqué parce que effectivement match la woon boo xam ne bii entre euh, ñaari favori wu double bi la woon mais surtout ñaari euh, potentiel euh, favori pour gagner coupe d'Afrique des nations bi la woon euh, ma gis ni ñun am nañ ci taxawaay bu wuuteeg bi ñu doon xaar voilà contre benn adversaire de taille adversaire boobu njëkk ñu ci lépp posé ñu quelques équations yoo xam ni après finalement remporté logiquement gain wu parti loolu dafa nekk loo xam ne li def naa ni bu dee mën naa wax ne ci match yi daal li ma gën a marqué boobu bokk na ci li ma gën a marqué quoi. ci match yi a jàpp nga ne équipe bu nu war a bàyyi xel la. équipe bu Algérie ci ni mu joué ak Sénégal frappé na ma. équipe bu Maroc également ci sérieux ak ci concentration bi mu am lors du match euh, bi muy joué Côte d'Ivoire tamit am na lu ma ci jëlee mais surtout Égypte ñi nga xam ni mooy dalal compétition bi et comme d'habitude d'ailleurs Égypte ci compétition yi ci kan dafay am taxawaay bu nga xam ne bu bàyyi bu jar a bàyyi xel la parce que moom toujours dafay am taxawaayu potentiel futur vainqueur mais gis naa également équipe bu mel ni euh, Côte d'Ivoire malgré contre-performance bi mu am ak Cameroun mais ñaar la ñu yoo xam ne mën nañ leen bàyyi xel en tout cas que bu ñu ko mën nañ ñëw. Coupe d'Afrique bi lan nga jàpp ne ci li nga jot a seetaanagum euh, mooy doon caractéristique bi nga xam ne équipe bi koy am mooy ëpp chance xëy na daal di gagné. c'est bien beau les tactiques les mises en place et tout ça mais l'état d'esprit football africain dafa am benn dimension bu wuute ak footballu par exemple Europe wala footballu Amérique c'est de l'engagement, c'est de la détermination, c'est de grimper l'impossible c'est pour les autres mais pas pour toi donc ak caractéristiques yooyu ku ko am mën nga dem le dernier vainqueur Cameroun loolu la woon l'Algérie devant nous on était plus ou moins favoris mais ils nous ont donné ñu wan ne loolu ba léegi moom mooy wéy gis nga ni ñu footballé ak et je pense que en 2002 loolu moo nekkoon suñu force hein voilà détermination engagement état d'esprit boo xam ne sans faille de vouloir aller de loin que gisuñu luy impossible et finalement on est ñu egg ci nii nga xam ne yegg nañ fa en 2002 la lii lañ leen indiloon ci seen numéro bu tay bi seen xibaaru Coupe d'Afrique dig leen daje ëllëg ci beneen numéro. ngërëm ñeel na la bu baax a baax papa ma jaxate Sarr doon nu fàcceel kon seen xibaaru Coupe d'Afrique dig daje ëllëg lay doon kon ñu jàll ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te wóor dañ koy tàmbalee wax ci festival bi ñu duppee kaso jombul kenn ñu doon euh, màggal rek li nga xamante ne moom moo di seen euh, fukki at yi ñu taxawal ak léegi foofule ca Louga ñoom nag li nga xamante ne rek moom la ñuy xeex moom mooy di nit ñi di bàyyi xel bu baax ci dundunu ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, prisonniers yi waaye itamit daal dinañu profité ci occasion gi ni mel ngir rek woo autorités yi ñu daal di leen dimbali kii di Mohamed Thioy ñu gën ko xam ci turu Kamak moom nag moom mooy coordinateur u kaso jombul kenn ci micro King FM. initié kasu jombul kenn depuis 2009 doon ci ànd ak suñu ay frères ñu doon nekk à chaque fois ci concert yi di kaas di kaas di wax li ñu naqar yi nañ toppatoo détenu yi nañ def lii nañ def lii à un moment donné ñu dem ba gis nañ ñun li ñuy kaas defuñu ko que ça soit muy état bi muy suñu homme politique yi muy ñi ñuy yaakaar ñëpp ñu nekk biir Louga. ñu xam ne suñuy frère ak suñuy sœur ñoo nekk ci maison d'arrêt de correction bi te soxla nañ ndimbal aussi parce que ku nekk xam na ne kaso métit ba fa nekk comme on dit tur bi wuyu na ko te kaso jombul kenn donc ñu ne léegi nañ waxtaan suñ biir xool at mu jot nan la ñuy def ba yóbbul prisonniers yi ay don bu njëkk ñu leen doon reyal ay nag di leen toggal ay añ di leen def benn journée de fête wàccee kaamil wala ñu ne léegi nag togg yi rek dafa doyul parce que benn fan lañ koy lekk mu jeex dañuy essayer à chaque fois di leen indil ay don yoo xam ne dina leen mën a servir ba at mi di delsiwaat wala genre ñu am idée waxtaan di leen jëndal ay ventilo ay télé ay matelas yuñ tëdd di leen jox ay yére pour un jaamu yàlla aussi parce que soxla nañ ko ñoom ñi ci biir donc à la base idée kaso jombul kenn loolu la woon ku may lancé appel euh, fu bonne nekk ci àdduna bi yëpp Sénégal dégg ko am yaxeenu ñëw jàpp si nga ñëw teg si loxo di lancé appel en plus euh, état wu Sénégal ñu ñëw def si loxo parce que luñ commencé la depuis dix ans kon donc nekkatul ay yoo xam ne ay caaxaan la ba léegi nii ñun ñoo koy def ak suñuy poosu bopp ñun ñoo koy def ak suñuy moyen ak juróomu kii ñaar dërëmu kële nit ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar appel fu autorité nekk mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi euh, Mouhamed Thioy Kamaak euh, nekk coordonnateur u festival Kaso jombul kenn ñu wax ci leneen ak littérature africaine euh, rawatina littérature sénégalaise bi ki bindkat bi jàpp ni kon mu ngi dox ci kanam bu baax. loolee ay kàddu Mafama Gueye la moom nag ab auteur la moom nag moo daal di bind recueil de poème bi li nga xamante ne moom la dippee mes premiers vers daal di nay itamit yëkkati ay kàddu rek jëmale ko ci ñàkkum maison d' édition yi file ci Sénégal ba tax na rek daal di nay sekk waxtaan kii di Oumou Hakim Aaj littérature mu ngi évoluer dans le continent africain ak ay auteurs yu am solo yi nga xamante ni ñu ngi leen ràññee ci àdduna bi ñuy am ay prix ay distinction waaye yaakaar naa ngir pour mu mën a gën a avancer gën a gën a prospérer maison d'édition yi war nañ gën a yombal bindkat yi eh, seen accessibilité ndaxte si réew bitim réew yi daal ci la gën a yombee eh, nga ñu éditer la loolu daal laa xam ne bokk na si li suuxat littérature africaine par contre pertinence bi mi ngi fi ba léegi gis naa ni vraiment littérature moom Afrique moom mu ngi jëm kanam si Sénégal également vraiment euh, c'est le même constat kenn mënul wax ni littérature avancé wul notamment ak euh, surtout si jigéen ñi si ñi si lool ay ñoom kenn bugul ñoom Fatou Diom vraiment donc ñuy bind yu am solo surtout sur le genre romanesque gis naa ni jigéen ñi ñeme nañ ko trop mi ngi noonu kon dañuy daal di jàll ci taxaw seetlu bi tey ñu jëmale ko ci li ñu duppee kankuran ñu gën koo nemmeeku foofu la ca Casamance ak it euh, Mbour nekk rek euh, mbir moo xamante ne dafay daal di màggal li nga xamante ne moom moo di aada ak cosaan jëmale ko ci wàllum pecc ak ay woy um mu àcc mu ngi noonu kon élément boobee di wax ci euh, li ñu duppee kankurang yembagul nekk mbir moo xam si tamit ñi ngi ko daal di gën a ràññee ca diwaanu Casamance ak fi nga xam si moo di Mbour taxaw seetlu bi euh, Umu Hakimu Acc moo ko def. muy faral di génn ginnaaw période xarafal waane du ñëpp ñoo ko war a gis jigéen ñi ak bépp ndaw bu dugagul néegu góor waru koo gis jàmba dong te ay xobu garab yi muur yaramam bi yépp sabar yile di julang di ko gunge loolee nekk instrument bu soqekoo ci culture joola masque bi di nëbb di tiital waaye it di ko jëriñ ngir mu mën a communiquer ak monde extérieur ñaari jaasi yi muy yox di ko permettre muy def bruit buy dawloo ñu bëri loolee yépp ñu mën cee yokk lii di yuuxu ya muy def moom ak ñamuy àndal génnum kankurang di nekk saa su nekk mbégte ci askan yi waaye it ñii di touriste yi di ci bànneexu bu baax kankurang di gardien tradition waaye it di participer bu baax ci éducation ndaw yi di rataxal diggante yi te di aax mystiquement fii ci Sénégal Sédhiou Goudomp Mbour wala sax Casamance di dundal bu baax di di kankurang loolee tax ba ñu boole ko ci patrimoine immatériel mondial bu UNESCO courant di feussel li di woy ak fecc sa su ne ngërëm ñel na la Umu Hakimu a ci midi culture ñu jall ci natal bi le portrait du jour tey ñu leen di gën a xamale ak Aboubacar Demba Camara. mu nekkoon uh, ab woykat foofu la ca Bembeya Jazz waaye itamit uh, moom nag jàpp nañ ni bokk na ci baat yi gën a neex uh, ci continent africain bi bi mu génnee àddina ak léegi daal dinay mat ñeent fukki at ak juróom-benn Mamadou Sow mën a defal portrait wam Aboubacar Demba Camara wala sax nañu ko daan di le dragon de la musique guinéenne le 31 mars tout 1973 c'est un accident amé sa mamel mon chanteur animateur compositeur wala sax lead vocal bu groupe wala orchestre bu mag ba di Jazz jëlee si gañu gañu. Lolé sax jur ab bu Alors moi j'étais à l'hôtel quand ils ont fait l'accident. Qu'est-ce qu'on voit devant? Les quatre roues d'une voiture qui porte le nom. On Effectivement, quand j'ai vu Demba, euh, le docteur qui était à côté dit non, non, ça va passer. Il a une fracture de la jambe, du bras. Euh, il y a une petite goutte de sang qui est sur le côté de la, du front. Bon, mais nous allons voir de quoi il s'agit. Le lendemain, quand je suis venu, la femme qui était là, il dit oui, euh, le mandat nous pensons que ça ira parce que hier il a même évacué. Alors ça donnait l'espoir. Mais le soir, quand je suis revenu, ils m'ont dit, ah, c'est à voir parce que sa tête a commencé à prendre du volume c'était Aboubacar Demba Camara dëddu àdduna si bisu 5 avril 1973 ñëwam boobu Sénégal si Fatali, Bokon na si teewee cérémonie solennelle de prestation de serment du président Léopold Sédar Senghor Sa assemblée nationale mu waroon ànd si ak Bembeya Jazz ngir amal ab chanson hymne ak it soirée ba ñu waroon amal abu bakar Demba Kamara Mungi Ganesi gane ci aduna ci atum 1944 qu'on a créé. ngi Bayeko ci à famille ouvrier bu Saraya moom John bi fréquenté école primaire Lata Mouy tambalé formation ébéniste Waye ci atum 1963 sa section manuelle bu Bayla Sabori sa frontière ba foofee sax créé section musicale du Peko Bembeya Jazz de Bayla la photo que vous voyez là, c'est le Bembea original. Comme chaque chose a son origine, voilà l'origine de Bembea. C'est-à-dire c'est l'ensemble là qui a été nationalisé. De Beila en 66 pour Conakry et qui est devenu Bembea Jazz National si atum 1963 gannaaw concours ba gouvernement bi doon amal si 33 préfectures sa Guinée Bébé Ajaz de Bayla bi Aboubacar Demba Kamara taxawaloon ak Oraya de Kankan ñoo mujjee jël raw gàddu orchestre national de Bayla nak jël ñaari yoon médaille d'or si biennal yu atum 1964 ak 1966 waral ñu dem tourner sa réewu Cuba fofé sax la tambalé siw ak disque bu mu regard sur le passé donc ci delloo njukkal Samori Touré ak Ahmed Sékou Touré Demba ak natangom bo tout ci groupe Bembeya Jazz gannaaw biñu Tabé, tabé orchestre national bu Guinée Pour na ci mission jëmmal culture africain ci xétu musique afro-cubain ak mandeng Pour na ci it musique traditionnelle xétu fep ci Guinée jaaz daan na inspiré wu it ci groupe yu mel ni Ray Band nekk sa Mali Star Band bu Dakar wala sax Super Jamono génnum àdduna bu Aboubacar Demba Camara boobule nag juróon na njàkkare bu rëy waraloon Ahmed Sékou Touré di njiitu réew Guinée ba woon tabb Sékouba Bambino Diabaté ngir mu remplacer Demba Camara waaye teewul Bembeya Jazz nekk si ay jafe-jafe waral ñu taxawaloon seeni activité si atum 1985 laata ci atum 2000 ñu tàmbaliwaat li ñu nemmeeku rek mooy Bembeya Jazz Du 8e congrès le responsable suprême de la révolution disait notre congrès a ouvert ses assises sous le signe de l'unité sous le signe de la bouche ouverte mais voilà qu'il clôture ses travaux sous le signe des fenêtres et des portes ouvertes à tous les frères, à tous les États et à tous les peuples qui acceptent la coopération loyale avec la Guinée. Mamadou Sow ngërëm ñel na ko bu baax doon defal tey kon nataal bi Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal boksu waxtaan bi nag mu ngi ko daal di sekk ak Ndeye Mati Dia sen compagnon yi lay nuyu. ma ngi lay fay di nuyu sa auditeur auditrice artiste rappeur nga. te yaay suñu invité ci Midi Culture. c'est un grand plaisir. nekkoon nga en groupe ak sa frère bi di Bourba moo andi sen kumpa. yàlla def li gën mu dëddu àdduna. naka nga dundee loolu. voilà au moment perturbé woon na ma tuuti. c'est vrai que toog naa ay moment yoo xamante ne j'hésitais un peu. par rapport ak avenir groupe bi. je parle pas de moi. parce que xam naa ne man sax One Day sama mag li ko fi jëlee aussi dina ma fi jëlee. mais je parle de l'avenir u sen kumpa. ak euh, lu mu jotal liggéey bàyyi ko fi. ak naka la ñu war a yeggalee projet yi. ba li nga xamante ne loolu la tamit eh, bàyyi ko fi mu baña a yàqoo loxo déjà pression bobu non rek hors décès beeg tu savais que ne forcément que ne yaa war yeggale parce que sa non la comme ni koy waxe héritage la mais héritage bi naka nga koy gérer lan nga mën apporter de plus loo xamante amu fi won nga war ko ci yokk foofu la liggéey bi ak xalaat bi lépp mais alhamdoulillah damay nan aujourd'hui j'ai réussi à amener sen kumpa ci niveau bo xamante tay par modestie peut-être mën nañ ko wax parce que on est dedans toujours mais buñu nekkon ci biti tay wax ko les gens ils vont nous dire que euh, Bouks il n'est pas modeste ou il doit pas dire ça mais heureusement maa ngi ci biir ba léegi mun naa am sañ-sañu pour wax ko démb waa seen kumpa bu ñu liggéeyoon dix bàyyi ko fi tey yóbbu nañ ko ci soixante te loolu liggéey kese mooñ ko dafal nekkuloon ay waxi neen wala ay xalaati neen premier trophée wu seen kumpa à part révélation bi Gaston jëloon ak buur ba premier trophée bi seen kumpa amaat muy meilleur tube de l'année man mako indi sen deuxième trophée buñu ñu amaat encore muy meilleure vidéo de l'année man mako indi encore sen kumpa buñu ñu meilleur album de l'année loolu man mako indi te loolu je pense que ligue bu bari la am nañu chance jouer ci scène yu bari yo xamantene bour buur boobu muy dund amuloon chance tek fofu nonu tay tankam tànkam je dis que ne mom amna lu bari lu ci liggéey baal ñuko fi mais tamit loolu mu doon bébé, pour ñu yegg li fa job bi amaguñu lepp à 100 pour cent mais ba légui ñong ci yoon bi. dara du doy moy album bi nga mujjé génné en 2016 depuis lors ci lan nga nek waaw c'est vrai euh, après 2016 ba tey dama xaawoon disparaître scène yi un peu parce que au moment tamit aussi musique bi kese du live amnañu nañu sunu ay famille am nañu préoccupation yu ñu wara mëna def musique aujourd'hui ci man les gens doivent savoir que bu njëkk ba même hal bu ñu amoon ak euh, même arñi buñ doon démé c'est impossible tuñu dématé même hal yooyu ak même arñi bu njëkk ba dañu doon xëlu du dem mais aujourd'hui dañuy xelu di dem c'est ça la différence au fait tuñu ay boyo non amone 18 ans nekkon ci rabbi wala amone ay 19 ans nek ci rabbi bientôt léegi ñu atteindre sunu ay 40 ans amnañu nañ sunu yeneen jeune frère yo xamantene dap ñun ñu tamit aussi ci musique bi di def plus que ñun luñ doon def kon amatul lenn loo xamante ne dañ koy xëccoo sur la scène musicale sénégalaise je dis ça ne veut pas dire qu'on a arrêté la musique mais tey musique bi passion la ci man ni ma ko sentiré ak ni ma ko yégué ak moment bi ma bëgg def moment bobu nonu la koy def et c'est tout à fait normal il faut ngay mag ak sa public il faut ngay évoluer ak ce public musique traditionnelle bi man je dis que né yàgg na ak ñu ah. parce que bo xol depuis suñu premier album Freedom ak Bourba Jolof avant mu fi juggé ay morceaux yu mel ay ay ñu dem wa daan nañu utiliser ay ay instruments traditionnels parce que morceaux ay ci ñu dem bo dégloo mu ngi amoon ay roulement de tama nekkuloon ay sample dañ dem fay ji benn musicien mu ñëw mu jël ñu ay roulement de tama ci bir morceau bi pour bàyyi xel ci li nga xamantene xam nga lool moy sunu culture te loolu nonu lañu ñu ci morceau jambar bi ma def ak Kazi ak Faat jambar yeah en tant que ancien ci milieu bi gis nga xalé yi dogo dor légui dañuy clashante seen bir et que loolu lañ gëna favoriser yow en tant que ku leen ci jitu lo ci wax waaw ça arrive parfois ay coup de gueule mu naam mais bu fekkente ne amul ay dégâts rek parce que clash mooy waxante dëgg ego trip mooy bàkku ça n'a rien à voir ak ay saagante ndey wala ay manquante de respect nit ki mun nga ko critiquer positivement te moom sax mun na accepter li ngui wax sans autant que nga heurter ko buñu ñu jamais clashante ak dóorante clashnikov tu sais c'est quoi la différence entre clashante ak dóorante clashnikov clash da ngay am cible bu précis tay bu may wax ak yow damay ñew jaar ci sa tur jaar ci sa sant ne yow lay waxal point yem ci lolu mais clashnikov moy tay yow saga sa baab yow saga yaay saga sa mag saga sa entourage saga say mbok moy mooy to kan nga amal problème lolu moy clashnikov manam boko doré ci bâtiment tu vas tout détruire lepp bu déssé ci cadre musique ak ci cadre art ñun ñëpp dinañu déggoo dinañu déggante dinañu comprendre. Bux ñoo ngi lay remercier kontaan bu baax a baax. artiste rappeur nga bokk ci seen kumpa. mu ngi noonu ngërëm ñeel na la tamit bu baax a baax Ndeye Maty Dieng doon dalal kon rappeur bi la di Bouks bu seen kumpa kat kon ñu jeexale jotaay bi ak wàllu musique wàllu musique la koy uh, tëjee tey nag woy bi ñu leen jagleel moom mooy di mbara wàcc bu daara ji uh, famille uh, bu woy nekk woy boo xamante ne rek dañu ko jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu lion yi sa ngëm ngi noonu kon sunu gaynde yi nara laa lekk équipe bu Kenya bu juróom-ñaari waxtu ci ngoon jotee ñu leen di ñaanal yàlla mu may leen ci ndam foofee tamit la ñuy yam ak yéen mbokk yi ci Midi Culture cant ak ngërëm ñeel na la Kati yi maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokku auditeurs yeeg internet yi ñu doon suivre di leen jox dig daje suba incha ci Midi Culture.